candidature Ousmane Sonko si boppam si boppam la daal daal di weddi rawatina li nga xamante ne moom moo di jury présidence bi ñu tuddee a Sangaré moom ki nga xamante ne moo di El Malick Ndiaye moom moo di candidat yi nga euh, euh, di xam ne rek moom moo koy jongante élection présidentielle bu février 2024 moom El moom gëm na ne kii di Ousmane nga xamante rek mën na tere Ousmane Sonko mu doon candidat ci li nga xamante moom moo di

candidat si jong ay jongante présidentielle bu dee mën nañoo bañ a joxe li nga xamante ne moom moo di équitus moo xam attestation wala li nga xamante moom moo di fiche parrainage ba ci extrait de naissance bu ko defee rek ñu mun a recalé ñu nga xamante moom moo di ci ay bi ñu tuddee Insa Sangaré moom El Malick Ndiaye daal di nga kii di Ousmane Sonko gisul lenn li nga xamante mun na kaa tere mu doon candidat si jongante reporté élection présidentielle bu février 2024 dina leen toppal mbir mi lépp li nga xamante nag jëlee nañ ko ci xibaar mu ñal mbir mi wala leneen li nga xamante nag soxal na askanu Sénégal dinañ del soit fii li yekkee leen ko incha allah ma leen naan bu leen fàtte abonné ngir mën a jot ci yeneen xibaar di leen naal jox leen dig daje ba yeneen jotaat xibaar yi incha allah ci layru bi l'international